géej jën yaa ngi ne la ak kong fumier yi kong kong fumier yi xam nga kong original Gambie lay jóge xam nga Sénégal amul kong original kong original yi Gambie lay jóge boo bëggee kong dëgg ak diwtiir dëgg fii nga koy jëlee gi nga conteneur yi yëpp diwtiir la ak kong mi ngi ne diwtiir ak koŋ laa diva xanaa bu ñuy ñibbi moom xanaa Paris di nga fa yóbbaale diwtiir ak koŋ laa diva l'international ah xoolu bi barke Serigne Bamba noonu namatuma bi jigéen lii laa namoon lii ma dañuy dégg ay Pape Diouf ah, di dégg ay Youssou ah, di dégg ay Aline Mbaye Nder ah, di dégg ay Vivi drapo gambi baa ngi nii de suñu nawle yi suñu nawle yaa ngi nii de barke Sëriñ Bamba Gambie laa Gambienne dëkk bu neex waay ñoom am kóllëre ñu baax ñu gore ñu bëgg sénégalais yi ñu soxorul ñoo xam ni lu ñu gis apprécié drapeau bi lu ñu gis apprécié du ñu yàq nit bëgg senegale yi nag te gëmewuñu sénégalais yi xam naa ni moom fi ñu teg sénégalais yi moom bis bu leen fa sénégalais yi tegee dëgg-dëgg ñun ñooy raw diggante Angleterre ak pomme terre <laughs> mais kenn du la diva la diva non artistes yu jigéen yu ndaw yi laa yërëm bu yeboo ñu dem defaraat seeni teint gën a yokk seeni formu am pagaay surtout yu jigéen ñi xam nga fi ne nii artistes yu Sénégal yu bari jigéen ñi déggatoo leen yow laa bëgg nga ne ci kaw kenn day yow

xale bu civilisé set ba pare nekk xale. mais Ngoola Diva ah l'international Sénégal lii la namoon dafa namoon xale yu mën a way ni yow set civilisé yor passeport français ah kenn du yow barke Serigne Bamba mais defal promenade ferry bi waaye defal promenade féri bi non waykat yu jigéen ñi nekk Sénégal laa yërëm ñenn ñi xam naa ni fi mu nekk nii moom ah. aar amaat na leneen noo jaaral nu la neex yow kenn du la téye aar am na lu bees tàq barki sëriñ bàmba aar am na lu bees tàq non Sénégal ku mel ni yow lañ namoon waay set civilisé waaye da ngay gis woykat bu toog ci kaw chaîne tilim ñuul kukk xeesal ba weex xoreeku yow nag naturel tee <laughs> tee naturel nga yor non allez allez allez allez mon baby allez non Ngô la diva la crémati la crémati non la non Ngô yaa ngi ci kaw féeri bi de dafa lu la neex dafa lu la neex su mu ni nii Sénégal yow la ñu yaakaar ci ay way ci civilisé xam nga yow fu mu nekk nii ku la jël yóbbu la Canada di nga ñu fa présenté làkkal ñu fa anglais yi set làkkal ñu fa français yi set Sénégal dañoo namm ko mel ni yow xam nga Sénégal non bàyyiwuma ko xale bi di toj réew mi non macha allah waaye yow foo ne mu féex yaa koy leeral yaa koy nooyal laatifa parce que Serigne Bamba woykat yi dem leen ngeen defaraat seen teen yi xale baa ngi ñëw te dina yëngal réew mi te baat bi noonu la garaawee tuuti rek bébé tuuti tuuti. tey moom bàkk tey ma jiin tey ji tey ji. Ah. non man bu ma woy bu ma woy damay kii nu mu tuddati ci féeri bi bu